سبحانه وتعالى ميغا خمني لم نيو خم اك و خموت وني سانت نانكو تا سونو بروم موم خمني نينكوي جامو فونا سي كاو سوفسي te moom daal moo ko yeyoo amul kenn kuñ koy nirooleel amul kum nirool ci dara ci lenn yii ñuy wax yépp sori na ko lool di way baayam di way nijaayam di way bàjjanam di way tàntaam subhanahu wa taala gannaaw bu ñu sante suñu borom moomu ñi ngi julli ci ñi ngi ñi ngi julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moo wax ne toog fooy dolli ko ci koy dolli ko mi ngi mel ne toog fu ñuy jaay a gët laaj ko lañ buñ la xeeñalut it xet ga na la ban na say bakkan te boo fa jógee it ku taseeg yow dana xam ne fa nga jóge laaj ko lañ a nga fa mbokk yi ñu bàyyi xel walla nu baal bis boo xam ne dara yàlla nañ ca ak jàmm tam yeex bis ba mooy bis bi sunu boroom di woo jaamam yépp ñu daje ñépp dekkiwaat ci ñaani sayidina ibrahima alayhi salaam bokk na ca wala tuxzini yawma yub'athuuna bis ba nit ñi di dekk yàlla boo ma gàcceel ñu ne ko ban bis la mooy mu ne bis bi nga xam ne bari ay doom bii nga xam ne ci ay jamono moo doonoon barke ku bare waan ay doom kenn du ko yàpp mu ne loolu amu fa njariñ waaye ku bari alal ci jamono ji ñu toll it bari na ñoo xam ne daañu la baal xel lu la waaye di wax it mën na la ko nëbb nee na loolu amu fa njariñ bis booba ak njaboot amu fa njariñ alal amu fa njariñ lu fa am njariñ mooy xol bu set wecc bu mucc ci bokkaale yàlla di sikk sàkka ba xam kenn ki ñuy wax ne moom la waaw walla déet kum ne cim xelam amagut xalbun salim sakkantuma ku naan ndax dekki am na waaw wala déet bis booba dañuy jegeel aljanna lool muy xeeñ xeet yiñ bëgg mu xeeñ ñu ñëpp daf cay xeeñ di gilli jege lool waaye a nekk nële di buur di dal loolu yow mën a xam ci suñ jamono tey ñu dana romb ak kër la ko fay xeeñ du bëgg a romb jàll bu dee ba xaaraan di am dëgg-dëgg kooka day wër kër yooyu yëf yi di gillee xamagut gum ca doon waaye genn ku nekk dana fa dugg jubale ca waañ wa nuyoo ba xam lu ñuy def lan la xet ga moo ko woo wa uslifati jannatu lil muttaqin waaye gaynde menn wala rab yi nga xam ne dañuy fàddaate ku ko indi ci dëkk bi bañ di ko xoolit benn mu dugal ko ci ak kaaf gu dëgër goo xam du mën a rëcc léeg-léeg mu buur bëgg wutal si nit ñi weñ ngi dox digganteem ak ñoom wala ñu yew ko calala gu gu dijji goo xam ne fañ koy takk du mën a buddi garab ga wala du mën a buddi lañ ko tënk lañ ko tënk léeg-léeg mu buur daal defe ne ci àll bi la nekk daa war a fàdd yanañ ci yàlla musal wa burizatil jahimu lil ghawin su boobaa ab laaj dana jib ana ñi nga xam ne dañ doon jaamu lu dul yàlla jaamu lu dul yàlla baat bu rëy la waaye lu yomba def la yanañ ci musal képp koo xam ne daa am xéewal lu mu doon wut te mënu koo am bu ne wut alhamdulillah waaye leneen dugg na ci jaamu lu dul yàlla ndax yàlla may maye mooy xañe Cheikh Mamadou Muntaxa li mu koy wax bari na yàlla miy def di dindi bat boobu daf koy jëfandikoo lu bari yàlla miy def di dindi laaj ba nag mooy ana ña taxoon ngeen di def te du yàlla mii yàllay laaj di xool leen leen ba xam dañ tal seen bopp sakkantu mag di tal keneen fa kuubu kiibu fiiha ñu nargañ leen nargañ mooy koo xam ne dañ koo daaneele nëfee naaj teg ca keneen teg ca keneen teg ca keneen xanaa ka suuf bu dee xiiboon dana sonn lool فكوبكبوا فيها هم والغاوون موي كو ديم با ييغاتوت نا يالا كين لا ييغاتوت نا يالا موي جوخه ييغاتوت نا يالا موي خاني ديم نا دال با تيغ مبرغم آه، تيغ مباغام مو فيس دل مو ييكاتيكو مو تول نكو نيه مو ني موم مو في نيك ام ني نكو يا في ني مو ني تيال مو جنود ابليس أجمعون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود وجنود إبليس أجمعون تدنا ليك نين تقله دبلن فب كنن دبل تكاو فب كنن دبل تكاو مجال جالي نيوم نيب سن نور نور لني وقت يسوف تالله إن كنا لفي ضلال مبين قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين nek ci rir gu met lañ nekkon luko waral moy id nu sawi nu sawikum bi rabbil alamin yi waji nga xamne dañ ko doon ya man ya sañ mu ne cell buñ buñ nar gagné ab xébon tek ko ca tek ca kenen tek ca kenen ñu ne xana ki diw mu ne ax kay ñoo ñane ko coono bi yaa ñu ko andi ndax id nu sawikum bi rabbil alamin dañ la don dañ don tek fa yàlla tek la fe nga ne cell ne xim وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعي ولا صديق حميم فوف ني سوخلنا فا يات سوخلنا فا قلب سليم موي قلب سد بيتش تي سيكي ساكا سيكي ساكا كين يالا دون كين دي سيكي ساكا ناخ ديكي امنا واو ولا ديت تك تي بتم وايي سوخلاس نافا kuy ñëw ne bàyyi leen kee bàyyi leen kee bàyyi leen kee benn muy waaju baax rek joo xam ne xam na ne ñee ay jullit lañu woon sonn nañ te yàlla sañ loo ne ko ko ka des di xarit bu jàll bu yàlla rus na yàlla tin ma ci sama xarit bi waaye ñoom lañuy jàmbat mooy amuñ fa yett yi lenn amuñ fa ndax la leen teg ca tegale boobee mooy dañoo amatul xalbun salim amuñu saalixin shafia amuñu sadiqun xamim yàlla nañu ci yàlla musal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag ci am njàngaleem nee na qalbun salim ku ne moo koy wutal boppam saa buñ ko ne yàlla nee na na na ne tekk ba xam luñ cay teg su dee luñ koy teree mu daal di bàyyi fa saasa bu ca nekkee su dee luñ koy digal mu ne ca fa saasa bu ca nekk gutoon te muy lu ñuy tere mu bañ koo geesooti ba faw ne na ku bëgg ànd ak waajoo xam ne nag day taxaw joxoñ joxoñ joxoñ joxoñ ñu bàyyi ñooña ñëpp loola fii la koy tàmbalee daf lay wan ni la yàlla kenn rekk na moo santaane ba noppi nag jiitu ca dina dem ne ma dik da ay ci lañu dem buñ teyé mom mu dox dem jëfëndiko la serigne Abdou Lahad ne ku ne ku dem ma dem ku demul ma dem bu fekké fa nga jëm aw yoon la so gesso man nga gis aw nit wala nga dab aw nit wala aw nit dab la kon neena yeen ta ngi ni yo xamne kuy ànd ak nit nako set ba ca jëk moy borom borom xel mu leew manam xel mu gudd te rafet bokk yi xel mu gudd te ñaaw ku ànd ak borom seytaane nga àndal xel mu gudd te rafet waaye xel mu gàtt te ñaawit ku ànd ak moom ab daf ngay àndal saa su nekk luy fii rek kon kuy tànn àndandoo na tànn àndandoo joo xam ne xel mu mat mu gudd la yor te rafet ndax kat borom xel mu gàtt te ñaaw ab dof la dof munta ràññee lu ñu war a bëgg ak lu ñu warta bëgg te sax du yàgg ak kenn ñaari fan ñett ngeen téerante téey ngeen téerante téere baat nga ne waxumoon lii mu ne lu ci sama yoon kon ànd ak boroomu xel mu gàtt te ñaaw gaaf la ku ne nag na xool boppam na xooli àndandoom ñaareel ba mooy na tànn boroom diine ku teg tànkam ci diine ci wax ak ci jëf ak ci pas-pas ndax ku amul diine moom noonu boppam la sax sakkantuma muy wàllu jàngoro ji keneen noonu boppam la ndax seytaane ko dugg inna seytaan lakum aduwan fattaxidu aduwan innama yadcu xisbahu li yakunu min ashaabi sair yan ñu ca la musal kon ku am diine joo xam ne njistalu ca bëggul ku ko ca naw bëggul ku ko ca yéem boo ko xoolee ba gisal ko sa bopp dee fa faral di bari tànk waaye ñetteel ba mooy boroom jikko ju rafet tudd naam xel léegi waaye jikko nit dana ko rafetle te fekk amul xel mu gudd amul xel mu gàtt waaye noonu la mel foo ko gis nag du tooñ du fayu du tooñ du fayu lu waay def mu ne amul solo ni ko ko di wax bàyyi mu sedd te kat kum war a wax lu baax koo mën a doon soo ko koy wax nga talaata ko sax dana ko def waaye kum gis ngay defaf safaane koo mën a doon du la ko jëw dana dem ba agsi caw na li ngay def du noona loo ko ca def baax na du tax mu bàyyi su ëllëgee day ñëwaat ndax jikkoom rafet waaye ñeenteel ba mooy koo xam ne saa su nekk dangay xam ne li muy siq ak yow dana la ca wan ne la lum la yéene yàlla ca jiitu moom kenn du yéene boppam ab safaan bat bu ndaw la am solo lool lu ma la yéene yàlla naa ca jiitu mooy koo xam ne kii lim yéene boppam la lay yéene kooka nag day mat léeg-léeg nga dem ca moom ne ko xam naa li ngay def moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ida ahaba ahadukum axaahu fal yuallimhu iyaa jëru mu di ko wax nii waaye na ko jëflanteeg moom delloo ko weccatam kon kenn munta ñàkk ñi muy àndal lim bu bare ba wéru ca koo wax mu ne sama xarita sama xarita sama xarita munta wér te njàng li mu jëkk ma daanañ ko jàngale ci koo xam ne daa ñëw ci daa tànn ñett ci ñi muy àndal ñëw ci kenn ki ne ko moom kat daa am lu ko dal mu ne ko lumu mu ne ko daa rey nit léegi ma nga nee sedd sax di caddi caddi te yow dong la am ci dëkk bi ma bëggoon nga xam ma nu may def mu ne ko ay man de ginnaaw fekkee wu ma ko sama yoon ko ci bay boo nga daw de kenn ki ne ko gaawal gaawal dem jox sa bopp takk der yi bala ko nit ñi yëg di la rey kii da ko génn lu dëkk bi kii da koo dem loo bo da ko yabal ca fa ñuy ñay jàpp ñu jàpp ko mu am njàmm foofu moom kenn du ko fekk di ko fa rey wala mbooloo dañ ko fekk di ko rey bokk ku mujj ko ne ko ay ca nañ dem lu ca war ñu bokk ko def lu ñuy def boole ñu ko def loolu nag la jamono ji soxla ko xam lo loo nek mu nek ci ak yow ñooñu ñoo bari kon bok ci ngay jëk tan ci boy and ak mom moy borom xol bu set wicc ci sik sak ci kenn ko yalla gi xol bu set wicc ci sik sak ba xam ëlëk dañu tew fa kanam suñu borom waaw wala deet ba lu ko neex def ku am pastas bobu nang ko tek ne waye na nga wut ci nit ñi ko xamne man na ci aw yoon bo xamne bu ëllëgé mo lay duggal fa nga bëgg dugg koku mo tuddu shafiq ki ram mu nit fi la koy tambalé mi ngi melni dama bëgg sangam nit and ak yow ba fa garage am nga pass déedéet am duggal la ci warta ba ca jëm jox la adresse bo wàccee ci dëkk ba numéro bi wala kayit bi taxi boko jox mu kooku so demé ba ag ci kër gëm la tassali mo la yóbbu waye su la né so jëmé penku mu ne la auto jëm sowu ngay dugg ndax xamut penku ko du dem do dem da ngeen ji nak fo xamné fa kubuki bu fiha hum wal gaawuun yalla ñu ci yalla musal yalla ñu yalla musal ci ñak qalbun salim yalla ñu yalla musal ci ñak صالح شفيع كل تك شو يغلو يل نون يل مسلتي نك صديق حميم موم لا دون تك موم لا دون مثال ليغ كي نيكو غناو داغا راي نيت ناني اندو لو ني داف ني داف نيكو نار يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين امين قزيد دار بدل